waaw lay gën a seer waaw ah géej gi moom fi ne nii nawet bi la gaal war a nappe ji fu sore bu nu demee tam ñoom ñu am jën ndax fi ne nii si biir géej mi ngi taw ay Tamba ay Mali yëpp mi ngi taw te gaal day nappe ba foofu mi ngi taw waaw moo tax jën maa ngi